tey ma ñëw fekk la fii si CES nga exposé lu am solo avant tout xadi lan mooy seen secret. Euh, vraiment dañuy jaay loo xam ne qualité la en plus Golden Shop ku nekk xam na ko te en plus lu ñuy jaay qualité la dàll yu baax boo ko solee moom say tànk du yàq original. mais dàll bi ban différence la am ak yeneen dàll yi. bokkul. dama bëgg nga présenté ma. Euh. dàll yi ay Italie ak Turquie lay jógee en plus lu baax la jaay. waxuma ci milieu bi jógee mais ban. différence la am ak sunu dàll yi ñu. bokkul boo ko solee sa tànk du métti day nooyal tànk bokkul ak dàll yi ngay sol say tànk di métti. d' yi ma sol ni maa ngi bëgg a dee xaw ma nag lan mooy. Ah, secret <laughs> kon xanaa dama ko liggéeyaale noonu. waaye dàll yi lan am comme produit boo xam ne war nga ñu ko mën a présenter soxna Khadija. Euh, am nañu ay euh, saag yi saagu lan la saagu góor la. saag yi nu mu tudd. Euh, saagu góor la ay marque la am na ci gis yu mel ni ay genre vingt et un. baax. saag lu muy jar euh, saag yi mi ngi jar vingt cinq mille. waaw saag yu baax la ñuy jaay. suñuy t-shirt xam nga ku ne tàngaay. ne coton ku ne yow yaa ngi xam de. ku ne tàngaay ne coton. ay caleçon marque. mais caleçon yi moom grand de. li mel ni li ñu ba man de ci booy laa dëkk. exact doo booy da nga ciy jël. Khadija ngi noonu. Lacoste coton xoolal suñu Lacoste yi. baax. mais Khadija fan ngay jëndee produit. Khadija fan ngay jëndee produit. Italie Turquie. Italie Turquie yow yaay demal sa bopp. non dañoo am ku ñuy demal. Ah. Euh, kii baa ngi nii. Euh, Golden Golden Shop. kon tournel nii ñu wone ñu ko. kooku c'est gratuit kooku dañ leen koy defal en tant que ay doomu sénégalaises yoo xam ni dañu nangoo liggéey kaay nii. Euh, mi koo jëlal ma lii Golden Shop. Golden Shop moo nekk Liberté 6 en face Pentola. Liberté 6 en face ci côté Uba bi noonu fu ñu jaayee yàpp yi nii. Golden Shop foofu la nekkee en plus li ñuy jaay baax na ñu bëree ko xam aussi. suñuy t-shirt t-shirt yi rafet. mais t yi doy na war de. yi lu muy jar. 15000 francs. kese mais lii la marque internationale. waaye exactement. t-shirt yu baax. kon daal Golden Shop. tey jii ku leen soxla nan lay def. Euh, na jël numéro bi 77. te koo jëlal ma numéro bi parce que numéro bi waruñu la ci. voilà numéro bi 77 doomu Sénégal lañ ñoo ko indi. 77. oui 104. 104 18. oui 12. répété ko. 77. oui 104. 18. 12. am na chaussure am na chemise am na t-shirt montre chandal. tout ça am nañ ko. mais Aramka tey ma ñëw gis fii ay produits yu yéeme mais lii lan mooy seen secret. li ay Aramka Beauty boutique cosmétique la en ligne buy jaay ay produits cosmétiques produits pharmaceutiques booy boo mënti wër rek ñu ngi fii di ko jaay à un prix moins cher yu jóge États-Unis Paris ak fu mënti dem. amaale nañ aussi suñu marque sénégalaise buy di Hair pour karaw la day may karaw et c'est 100 pour bio. mais tey ji kon li ñu daan uti ñun bitim réew bu ñu neexee ñëw concentré wu ci Aramcar boutique. concentré wu bitim réew ak fii dañuy jaay ay bi bio comme glé di xeer dañ aussi boutique Aramcar bi ci am na produit yëpp. lan mooy seen secret. suñu secret mooy suñu prix yi cherul te qualité la ñuy jaay et aussi da ngay dañ lay expliquer ba nga comprendre sa pot. mën nga ñu wax tuuti ci produit bi ngay jaay njëriñam lan la ak euh, par rapport ak yeneen produit yi. par exemple su ma la ñëwee ci produit karaw yi. Mhm. defaree ñu ko karité kakawoo lañ ko defaree. sénégalais dafa ragal kari dafa ragal kakawoo ndax seeraayam. mais kakawoo kakawoo ak karité ban différence la. kakawoo moo gën a cher en plus chocolat la chocolat blanc la moo gën a nooy day nooyal karaw Côte d'Ivoire lay jógee moo gën a moo gën a baax pour nooyal karaw du dëgëral sa karaw aussi daf koy saxal. mais mais mais est-ce que du yàq sa karaw du ko def dara. du ko yàq la. Côte d'Ivoire lañ koy bayee ku xam Côte d'Ivoire xam nañ mooy cacao. fa la yow bu yàggee tudd baa doo yàq karité bi. non duñ ko yàq parce que parfois ñu liggéey ci karité mais quand même ci cacao la ñu gën moo gën a baax gën a yow ban produit ngay yow ak teint bi ma gis nii. ma loolu karaw la woon du coup pour sama peau man produit yu jógee pharmacie rek laa utiliser mooy yi may jaay nii. du coup produit nga gis fii nii yëpp boo demee ci pharmacie bi da nga ko fay fekk. nga ko gis pharmacie. loo loo fi gis nag du la gaañ. loo soxla boo amee tache ñu dindi san xeesal la sans gaañ la du ñu yàq sa peau teint naturel ngay am doo xeesal boo ñuulee sa ñuulaay day set boo marronee sa marron day set. tey sama genre gi ban lañ war a jël. boo amoon bouton wala tache. Mhm. lu am bouton wala tache mais instant bii nii dama lay jox loo xam ne day setal sa kanam voilà dootoo ñàkk ba pare soleil bi dootu la lakk jant bi dootu la lakk. man de en tout cas maa ngi bëgg a dee. billaay <laughs> yàlla ñu ñuul kuruñ yi loo wax si ñoom ñuul kuruñ ñëwal seet si Aramka Beauty soleil bi moo leen ñuulal rek mais boo leen doon protégé wu ci soleil bi di ngeen am ñuulaay bu gën a génn. su fekkente ne dañu la soxla même bu fekkee nekkoo ci foire bi ci ban numéro lañ la mën a jotee. su ko defee loolu dañ la ko may gratuit waa Kër Ndaanaan TV. Waalo Waalo TV ak waa KS mhm. dafa gaaw de waxaat ko parce que la koy may gratuit nga dem seetaanaat sa bopp ci loolu. waaw 77. 157 12 51. su ko defee. Ah, moo tax mu ñëw ba fii moo tax mais mais bi nga ñëwee nii li nga jënd euh, kontaan nga ci. fii kontaan naa ci torop sax ah. macha allah waaw. parce que bu njëkk boo déggoon foire rek mel ni képp kuy sénégalais bokkoo ci mais tey jii ñii liñ ñu defal lan mooy seen fay. ah en tout franchement amuñu seen fay ndax produit yu baax lay jaay moom. ndax man. gis nga de sénégalais yi nee nañ produit yu baax lañ jaay yow ban produit lañ la mos a jaay boo xam ne am nga satisfaction. non man gam capillaire bi laay utiliser ci moom ay produit te franchement baax na moo tax ma ñëw fii ba ñëw ba foire bi fekk si ko pour mu jaay moo ko. Aramka Boyeti bonne nuit. ñu ngi lay fay bu baax. te ñu ñëw ci foire bi doon leen seet si nu xale yu jigéen yi nga xam ne ay liggéeykat lañu ay jàmbaar ñu gis ne lii bu njëkk bitim réew lañu daan dem wala ñuy commandé sa mag bu nga sonal ko lii bëgg lii tey ñu gis ngeen indil ñu ko ba ci tànk lan mooy seen secret ah ñun dañuy nekk ñun dañu nekk ay ndaw di toll ci wut donc ñun xeebuñu dara ñu dara lu ñu gis nañ ciy dugg donc moo tax lépp loo xamante ni nii tey mën nañ ko indi fii ci Sénégal xamante ni suñu ndaw yi duñu préféré génn di ko uti di ko amee fii suñu moo ñuy gënal wax dëgg neex yàlla parce que ñun ñëpp ñu fi nekk ñëpp tey amaana lépp loo bëgg tey boo ñëwee ci fois bi danga koy am. Fifi lan mooy seen euh, secret. suñu secret ñun xanaa. waxal secret bi rek am na loolu di nëbb. ñun ñun par exemple ñun waa Fifi Jadid House ñun lépp loo xamante ne nii tey ci lu mel nii par exemple euh, céréales yi nii. Mhm. xam nga loo xam te lépp xale yu jonga may lépp lu ñu bëgg xam nga muy def pour defar forme mu am yaram. croissance su xale lépp ñu dañ koy def. lii nii lii may seen nii lii lan lay jëriñ. lii nii pour maye jongama daal xale yi jongama yi. mais ba yaram bi su ëppee du du. non ah xooloo ma maa ngi nii taxaw. est ce que moom ngay jël. bien sûr est ce que amoo leneen bu may tëdd moom laay naan. lii ngay naan waaw nan lañ koy utiliser lii. dañ koy togg comme li ñuy toggee sànqal. comme xam sa wala. non waaw comme li ñuy toggee sànqal sànqal. waaw moom lañ koy def. après nga boole ci lan. après nga def ci meew def ci sa sucre vanille fleur de def ba mu neex naan dafa tax nag boo koy naan mën nga si naan lu nekk doo ko yëg. mais du la def dara. non non amul benn effet secondaire parce que kenn mélangé wu ko amul benn mélange amul dara. Ah, waaw gis nga. non non naturel. dafa dafa am dafa complet complément alimentaire la parce que c'est à base de riz et de maïs. en tout cas ñu soo ko bëggee soo soo ko bëggee fan nga koy fekk nii. Euh, West Foire. Mhm. Euh, numéro bi di 77. 613 89 11. ku ci bëgg céréale bi. na woote ci 77 613 89 11. céréales yi comprimé yi lépp laay boole man. mais yow waxoo ma comprimé yi de moom dafa maa nëbb comprimé comprimé yi pour góor la wala jigéen. comprimé yi góor da koy jël jigéen da koy jël. comprimé yi lan mooy njariñam ah comprimé yi moom dina la may taat dina la may wér. lép luy maye lépp luy maye lool moom du pour góor. ah am na yoo xam ne pour prise de poids la pour góor ñi. xanaa mbëri. mbër góor des fois nga gis góor bu tuuti naan tuuti garab xaw a taay yàqul góor. mais du yàq si ci kiyam dara. lu yàq si moom dara lu mu la yokkalul du la ko wàññeel. comprimé lu muy jar céréales yi tamit góor da koy jël. comprimé yi lu muy jar. comprimé am na 5000 am na 3000. mais li mu sol fii nag lan la. lii string la ah! la ilaha illallah non man sama xol sedd na gis naa sama rab waxal. mbaa du comprimé yi moom. sa euh, ça dépend ku nekk ak li nga bëgg ñi bëgg prise de pois am na ñi nga xam ne forme kese lañ bëgg am na. waa gisoo nu mu jong nu ma jongo ma xanaa gisoo résultat bi. mais ki ki day diw wala dafa ci céréale bi lay jël. céréale bi laay jël di naan si comprimé yi. ah jëlal dawal gaaw xoolal céréale bi nag. ñu ngi ñu xool la. céréale bi nag moo <laughs> barki rasulilah céréale bi. sama jabar bu ko jëlul. Ah. kër ga day day moom day dem. tey ma laa jox ñaar nga yóbbaale. dégg nga lu ma la bu day def départ. ah départ